mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Daaru Koso euh, ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ fi amal at mu jot euh, di dëkkub Serigne Mahmadan euh, ñu seq ko jotaay ak waa ahlu kafe bu Daaru Koso ñu takku taxaw di yor wàllu bernde gi di jëm ci café yaakaar naa ndaje murit moom fu daje fu ne café gi faaw mu bokk ci yëf yi ma janoo ak Serigne Mame Thierno Tine Mame Thierno ana yan kàddu ngay sànni. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñu ngi di nuyu bu baax te di leen tey baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq day wax ne moom ahlu café bi moom dañ koy def taxawal ko ngir liggéeyal borom daarul Muxti liggéeyal borom daarul Muxti nag jaare ko ci eh, dëkkub Serigne dëkk ci dëkk ay dongo yoo xam ne dañoo ne eh, baax te yaakaar ne loolu suñ ko suñ ko sosee dina loo xam ne luy jëmal bis bi la te luy bi la loolu moo waral ñu xalaat ne ahlu café ko def eh, saa su jotee ñuy bennal gan ñi nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi addeey addeey noo leen di fexe ba mu daje ba ngeen mën a def li ngeen def xam nga café moom deesu ko for waaw incha allah aju addeey addeey def ba daje mooy dañu def at mu nekk góor gu nekk te joxe junni ak ñaar téeméer waaw jigéen gu nekk tamit joxe juróom benn téeméer loolu loolu la ñu dajale at mi ko dee saa su at mu dellu si waat bu ñu fi jógee suba mhm. incha allah rabbi commencé waajalaat ko jëmaat jëmaat jëmaat déwén waaw noonu noonu noonu ba mu dajale euh, da ngeen am ay daayira yoo leen amal wala waaw euh, ni ko ni ko amal maam dafa doonu doonu daayira yu ñu daje dañuy def suñ suñu ne jàpp nañ maagal gi bés sàngam rek ci ci diggante boobu noonu fi la ñuy wootante téléphone communication bi ni ko gars yi defee ba fexe ba euh, addiye yëpp daje daje waaw ñu koy. macha allah macha allah daaru moom yaakaar naa dajale addiye lu leen war a a yomb lu a nekk maam Thierno moom bay jox suñ kon wasalaamaaleykum wa rahmatuhu wa fii ci kër euh, sëñ maam Thierno moom sëñ maam Koso moom sëñ Mahmadan moom euh, maam Cheikh Ibrahima Fati euh, taalibe ñëpp ñu ngi ñëw di nuyoo di siyaar si ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la amal fii ci Daaru Koso sëriñ Serigne Mahmadan Koso Serigne maam Thierno di ku baax koo xam ne wax dëgg fi yàlla mboole mbokkam yëpp teew nañ fi gis nañ fi sëñ Koso Xariñ Ñang sëñ Kara Diop sëriñ Mahmadan moom sëñ Moura Awa la Euh, waa Darou Mokhti kenn desul euh, gis nañ fi Serigne Mame Thierno Mbacke moom Serigne Khalil moom Cheikh Ibrahima Fati euh, yaakaar naa daaru kenn desul mbokk yi it jóge nañ fépp ñëw loolu nag muy tegtale ne wax dëgg fa yàlla ku taxaw ku taxaw fa nga xam ne fa la wajuram yu baax ya taxawoon la ak yee salaat ñu koy ñaanal suñ borom yokk aw fanam te gën ko taxawu mbokk yi ñëpp ñëw nañ boo xoolee taalibe yi kenn desul mbooloo mu ñëw bu ñu jàllee meneen ñëw bu amoon solo fii ci Darou Kosso. ah. ngeen baax lool Cheikh Diouf Rose Thierno. yal na yàlla ak Serigne Touba. amiin ngeen baax moo ngeen baaxoo doon Thierno. man lay Serigne Mahmoudane Kosso Abou Khouros Marème Balla ak Mahmoudane Marème Balla ak Modou Marème Balla Marème Balla Fati Kote Mane Balla Astou Maoumadou Serigne Mamadou Serigne Mahmoudane Mame Sulu Village Soxna Fati Sa Ndiaga Issa Mour Fakou Diop Matar Ndoumbe Samba yi ay Diop Ndiaga Issa Ndoumbe Matar Ndoumbe Kokki Massamba Gat Ndaak Ndaak Mbëri Mak rek wax la noonu wax la noonu Balla Aïssa fa woy gaay nee na um aw way ak umul loo jëlee Thank you.

Kasa Euh, sëñ Mourtada euh, ñoo ngi fii ci waañu mag wi kër sëñ Maxtaan Mbàkke xalifa euh, sëñ Mahmadan kon tudd bis bu mel nii da nga tudd bernde tudd waañ ñu taxaw ak sëñ Cheikh Niang di jëwrunu waañ wi sëñ Cheikh Tawfekh Production moo ngi lay nuyu bu baax di la sant dee laaj ana ban taxawaay ngeen am ci liggéey waañ wi ba am ci tawféex ji ngeen ci am ni waaw jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay delloo siyaare bu baax yaa bokk yi nga àndal mhm. di rafetlu seen teewaay ci bis bi. waaw di fi ñuy ubbee rek mooy di doole sant suñu borom tabaraka taala mi ñu baax ñu daje ci jàmm di julli ci wàllu salaam waaw di doole eh, sant sëñ Maxtaar Mbacke mi ñu boole ci yëf di ñaan yalla na ko suñu borom gën a yàggal suñu kanam lool moo ngi njaboot sëñ Maxamadan gépp ku ñaan njaboot borom daaru gépp di barke Seexal Xadim ñu seen ginnaaw di jëfe seen digal di daw seen i tere waaw wax dëgg yàlla sant rek. ku tudd waañ eh, tudd organisation. Euh, ban organisation ngeen am ci liggéey bi ba liggéey bi di yemb noo leen bu bu màggal jub see ana yenn taxawaay ngeen di taxaw da ngeen di ñëw dajale addiye yi noo leen def ba ba ba liggéey bi demee nii daal loolu bëgg naa boo ci amee loo ci mën. waaw sëñ bi nga dañ ne programme moom lépp lu lépp lu koy doxal rek mooy organisation waaw organisation mooy jiitu naka jekk noonu lañ koy doxee ci ndigalu sëriñ bi ndax fu màggal bi dëgg ma see rek dañuy soññee ci réunion yi di daje def ay réunion yu jege. di gën di waxtaanee daayira bi ndax liñ naan yanukatu gaal dañuy yëgoo waaw ndax sëñ bi li ko ñor rek mooy lu defar bis bi ndax loolu mooy mbiram moom koo ko xam rek xam nga ci loolu. ñi sol tani yi couleur yi ngeen sol nii ñi ko sol ñooñu ñooy daayira bi. en plus ñoom ñooy ñooñu ñooy daayira bi koo gis mu sol dëgësmaa bu mel ni bii ma sol rek daayiratul xiyaar ci la bokk. daayiratul xiyaar waaw. ak feneen ak feneen sax waaye Touba mooy base bi waaye fii ci koso mhm. ñoom benn lañ ak tubaa ak Tingiti mhm. ak yeneen dëkk yi jigéen ñi dafa am jëwrin waaw jigéen ñi rek seen jëwrin mooy soxna Ndeye Fall xam naa sax danañ la jox nga dana addu xam naa ci kanam bu dee ci wàllu añ yeeg yooyu euh, mbana yi euh, góor ñi ñoo togg wala jigéen ñi dañuy nekk ci soble seeg yooyu buñ paree jox jigéen ñi ñu togg wala ñëpp a sëmbaxloo rek ah, waaw moom fii sëmbaxloo du fi am maanaam euh, wàllu togg yi jigéen ñi ñooy togg góor ñi dañ leen di jàppale rek lu mel ni di xool soble yi ak tànn ceeb bi ak di wëlbati mbana yi bu ñoree waaye togg moom mbirum jigéen la liggéey doole yi daal waaw liggéeyu yi daal fi góor ñi def waaye jigéen ñi moom ñooy toog waaw ñooy togg ba mel ne war a mel wax dëgg yàlla macha allah yàlla ko yàlla gën a jëme kanam waaye wax dëgg yàlla euh, sant sëñ bi sant na ci lool at saa bu ñu fi ñëwee daal dellu danañ jot ngërëmal sëriñ bi waaw ci pësteef bi ndax sëriñ bi moom ni mu koy bëggee saa su ne ni mu koy waxee mooy nay teel uh-huh. cay ñor rek waaw nee naa bu dee teel cay ñor incha allah uh-huh. dana jeex jërëjëf jërëjëf nay teel tey ñor lan mooy say kàddu yu mujj waaw kàddu yi tey mooy wax dëgg yàlla di doolee sant rek di doole ñaanal borom bis bi sëriñ Mahamad yàlla na ko suñu gën a fayal ca taas ci barkeem moo ko sëriñ Maam Mor mi ko njëkk a wutu ñu ngi koy baax yàlla su ma dooli seen leer taas barke di ñaanal sëriñ Maxtaar yàlla ko yàgg a wootee bis ñu yàgg koo ànd ak moom barke Cheikhul Khadim comme niñ ko doon defee ci suba ba léegi rek ñoo ngi fii ci kanamu soxna Bintu Mbacke mu feggoog ay rakam soxna Ndey ak mi nga xamante ni ñoo lañ fekk ci barab bi comme ni lañ ko waxee woon rek jàmbaar ji nga xamante ni mooy Serigne Mamor ki nga xamante ni moo wuutu woon Serigne Mahmoudan ci 1976 borom liggéey bu rëy bi nga xamante ni ci image yi ni jaar yëpp ñi ñooy ak njabootam ñoo ngi ñaan bu baax suñu borom taas ñu ci barkeem bu baax a baax a baax te yàggal fi njaboot gi am nañ mbégte bu baax a baax teew ci kanam ak soxna si mu feggoog ay rakam ak taalibe yi yëpp comme niñ ko daan defee at mu jot ñu ñaanal leen bu baax suñu borom defal leen fan wu gudd ak wér ñu sut bu baax seen waajur wa aw fan te lim yéene woon ci liggéeyal lislaam ñu mottali ko bu baax a baax a baax te ànd kook taalibe yëpp ñoo ngi koy sant bu baax di leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi fii ci Daaru Koso ba tey di wéyal ziyaar yi ak nemmeeku yi tey ñu ñëw fii nii ci kër soxna say Mbacke bintu Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu xaadimu rasulillahi salallahu alayhi mu nekkoon kenn ci njabootuk sëriñ Mamour Koso ñu fekk fii taalibe yi ñu bàyyeekoo fu ne ñëw di ko ziyaar si di ànd ak moom bisub uh, waajuram bisub mbokkam bisub léppam Euh, comme fi ñu jaar fépp rek Tawfekh Production teewaayam fii ci Daaru Koso dañuy bëgg mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ak fu ñu mën a nekk ah, ñu mel ni dañoo teewoon fii ci bis bi ñuy ñaan suñu borom deful ko Tawfekh mu yàgg koo def ci sagoom ah, ñu yàgg ko fee fekk ci jàmm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi lay siyaare di leen ñaanal yal yàlla guddal saw fan te bàyyi la fii ci ëtt bi ndax maara mi ci baar yi liggéey bu rafetee borom da ko fekkee caa yow ba nga ñëwee daaru sa baay indi la fii ci seex mor ci ci ci sëñ maam mor koso borom bis bu tedd bii liggéey rek laa xam nga di ko def di liggéey di toggal sëriñ bi di fóotal sëriñ bi di def lu baax di wax lu baax ci mbokk gi foo mën a ne ci jës price bi balaa ngoone egsi nga fii ci koso njoowe kon Mamadou soxna bu sami ci baari xaadim borom nit ñi maa ngi lay ñaan ci sëñ ba sa maam yàlla na yàlla guddal soo fonte yàgg sa taxawaay